Pagaas moo nekk nii. la soirée dox ci diggante Niagass ak Gorofil arbitre sifflé na Doro File ngay daw daa bëgg a ñëw taxawee côté bi waaye te ñagas dina ko ci bàyyi lewaatoo bi bar na Doro File na dooraat ñoo ngay xeex munu cee ñàkk xeex bi munu cee ñàkk door na ko dooraat ko ñagas Doro ma ngay daw ma ngay daw Doro daw Doro ñagas añ na ko mu bañ ñagas Gora File ñaar xale seen combat ni la mën Ardo Ardo am na ci yoon Gora File na Gora a ngay daw ñagas Gora File munu cee ñàkk arbitre bi siflé waat na combat bi dox ci diggante Gros ak ñagas Gros dem na ardo ba dellu si waat ñagas jël na tànk ba da daan da koy yenn loxo ba ci kaw day génn du génn da koy daan waaw waaw ñagas ñagas daan na Gros duma na daan na ko ñagas ñagas duma na daan na ko